asalaamaaleykum mbokki aduna ñu ngi leen di nuyu fi sur la télévision xewal TV ci seen émission bu mag bi di gantiax gantiax gi nak ah, boko déggé déggee lëm ëmb bari na képp ko xamé da ngay fajuk olof wala reen wala fièvre bo xamé ni nañ ko tek ci table bi daat koy wax safaré lool boy gantiax gi man ah, systématiquement man ma koy def saa suné tay nak ah, ma dalal kàngam lata nak muy nuyo damay daal di tek ci table bi fièvre yi nga xamé ni tay mom la wara waxtané feebar bi nga xamee ni mooy bu njëkk bi mooy ñi nga xamee ni jigéen ak góor dañuy fowee seen bopp bi ci topp ñu waxtaane koo xamee ni day fàtte feebar bi nga xamee ni yow da ngay fàtte saa su ne di waxtaane waat tam feebar boo xamee ni mag ak ndaw jigéen ak góor da leen di dal muy tuur ndox ñuy waxtaane waat li nga xamee ni mooy xetu koo xamee ni dafa am xetu gémmiñ ak xetu xetu yaram ñun nak tay fi ni lool lañ wara waxtane ci suñu gaccax gi ma ci inviter sa suñu muy serigne bass bamba xewal serigne bass ma ngi lay baye nga nuyo mbokki aduna bi onsu billahi minas rajim bismillahi rahman rahim barka borom touba barka borom touba barka borom touba jere jeuf serigne salihu jere jeuf serigne salihu jere jeuf serigne salihu gina bu sante yalla julli ci geri geri sayidina muhammad ñi nga sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di gërëm suñu sang ba serigne salihu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg te wër Serigne Babacar Sy Mansour mu tedd mi yàlla na fi yàgg te wër Serif Ablaye Thiaw Laye yàlla na fi yàgg te wër baay bii ci law nañu seen ak sunu baay bii ci Medina Baye yàlla na fi yàgg lool te wër sunu baay bii ci Thiénaba ak sunu baay bii ci Ndiassane yàlla na fi yàgg lool te wër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général kullu Baye Fall yàlla na fi yàgg te wër Serigne Mouniru Njigéen yàlla na fi yàgg te wër ñu ñaanal sunu waa kër maam Alpha Thiombani ak sunu waa kër maam Rawane Ngom ca Paal ak sunu waa kër maam Cheikh Omar Foutiyou taal ñu ngi leen di ñaanal yàlla nañu fi yàgg te wër di nuyu nag njiitu réew mi président Macky Sall di ko ñaanal yàlla jàmm ndax bu amee jàmm réew mi am jàmm di wax asalaamaaleykum mbokk àdduna bépp rawatina waa Sénégal ñu ñaan suñu néew bi yàlla na fekk yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm jërëjëf soxna Mati ginnaaw nuyoo yooyu am solo yooyu mu def muy Serigne Bassa Ba mu xeewal ñu ngi fii ci seen émission gàncax gi tey nag à ah, première ah, feebar bi ñuy waxtaanee ci table bi mooy ñi nga xamee ni góor ak jigéen xamee ni dañuy fowee seen bopp Serigne Bass. waaw am na loolu lu bari la nag. Mhm. mais da bari nag feebar la boo xam ne. Mhm. li ko mën a indi bari dañuy tënk rek. Mhm. ndax am na góor ñoo xam ne. dañuy nekk ci duus. di fowee seen bopp. na jigéen ñoo xam ne dañuy nekk seen biir nekk di fowee seen bopp. nekk na loo xam ne nag li ko mën a andi bari na. Mhm. am na ci lenn li nga xam ne. Mhm. moo ci jiitu mooy. Mhm. jikkoy saay-saay. jikkoy saay-saay maanaam yori jikko bu bon. loolu ci li moo ci jiitu. maanaam am na it rab dina la ko def loo. maanaam jinne dina la ko def loo. ndax bari na ñoo xam ne tey bu ñu ko defee ba pare. dañuy jooy. dañuy rëccu liñ ko doon defe maanaam seen xol seen àdduna bépp tukki. léegi nag bu ñu ko defee ba pare nag. dañuy rëccu nag di jooy. am lu leen naqar te duñ ko mën a jàmbat fenn. dëgg la feebar la am na feebar yoo xam ne. Mhm. xam nga sénégalais lan moo tax mu am problème. Mhm. bokkal ak tubaab yi wala yeneen làkkat yi. Mhm. ndax làkkat yi bu ñu feebaree benn feebar dañuy ñëw ne damaa feebar feebar nangam laa feebar. mais ñun dañuy yor feebar di ko nëbb. te feebar boo koy nëbb mu ngi mel ni yaa ngi yar yaa ngi yar loo xam ne dafay màgg. léegi nag su demee nag ba màgg ba sës nag. ci la ñuy door a jóg ba boo ma laajee. Mhm. lan lan moo koy indi. Mhm. ma ne topp sa bakkan. dëgg dina ko indi. Mhm. boo toppee sa bakkan nag fi mu la yóbbu mooy ji koy caay-caay la lay yóbbu. ndax bakkan fi muy jëmee nit. fépp fu mu jëmee nit rek baaxul. dëgg bakkan moom. ak bànneex ak dunia. moom loolu moom ku ko topp rek. maanaam topp nga sa musiba. ndax du la yóbbu fenn. fudul. réer te réer safara mooy safara mhm. ñi réer ñëpp safara lañ jëm yàlla na ci yàlla musal mhm. waaye daal boo bëggee dégg-dégg daal mhm. li ci ëpp topp sa bakkan la li ci des it jinne dina ko def loo nit maanaam di ko di ko xattal muy def lu mel noonu waaw loolu daal moo koy indi ci liñ ci ci gàttal daal comme Serigne Bass ni ñu leen ko waxee topp sa bakkan ak rab kon suñu mbokk àdduna yi dee leen bu leen bu leen di fàtte di abonné seen seen Xeweul TV fii la njariñ safan fi la ñariñ li nek fi nga xamé ni bo fi ñëwé sa aajo dina fay ci sëriñ Bassa Bamba xéewal mais sëriñ Bassa Bamba xéewal lool lan mo koy safara wa bu dee xam nga ñeneen la bu dee mhm. sa bakkan la mom mhm. da ngay delu wat ci yalla ta xamné mhm. bis dina ñëw ñu sangala sangala la laxas la lema la la perkaal dem jullee la jox la sa borom dëgg la te bo démé te lool ay bakkar la manam li koy saafara. Mhm. mooy nga tuub delluwaat ci yàlla. Mhm. te xam ne bu dee sa bànneexu bakkan kese la. Mhm. li koy saafara nga tuub delluwaat ci yàlla. bu dee nag jinne moo la koy defloo. nga dem faju ji seet koo xam ne. mun na laa defal ay sangat ay muslaay. ci alxuraan ji. nga bañ a rey ay ginaar wala rey ay xar. wala rey ay nag wala rey ay bëy. loolu yëpp da koy gën a yokk. nga xool koo xam ne day ñaan yàlla mu ñaanal la yàlla yow it nga ñaanal sa bopp ndax nit ki bala moo ñaanlu na ñaanal boppam ba pare ndax yàlla moo ne ñaan leen te ngeen ñaanlu ñaan nag li koy nangul mhm. mooy nga am pasteef mhm. ne lii dinaa ko bàyyi mhm. loolu moo ci jiitu li ci des nag nga dem sant nit mu ñaanal la ndax conséquences yi mu mën a indi dafa bari bu dee góor la ngay fowe sa bopp ba maniwu génn ndax man niwu ni ko mhm. yàlla liggéeyee ci sëy rek la mën a génne doo am benn jafe-jafe mhm. waaye bu génnee ci lu dul sëy mhm. maanaam day tawi sa sidit bi nga xam ne moom ngay sëy xam nga élastique moom léeg la nga gis élastique boo xam ne dootul am njëriñ lan moo tax amatul njëriñ li mu taawee ko moo bari dëgg la léegi nag bari na ñooñu nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi ñi ngi fooy seen bopp bari na ñi nga xam ne fi mu ne tëlee ñu ngi leen di bëgg a may soxna ñu bañ ndax ci dara ñu ngi leen di bëgg a wutal soxna. Mhm. ñuy ñuy ñuy taamu naan non non bëgguma kii fekk na yow. Mhm. danoo fawe seen bopp. dëgg ba tële. Mhm. te boo ci tëlee. waxuma mënuñu ko fajjal ndax amul feebar bu dul wër. mais di nga ci sonn. ndax li nga war a def ci ay garab. xam naa ci bu dee garab yi nekk Sénégal gi rek. di nga sonn pour mu faju te li nga ci war a def seer na seeraay goo xam ne. maanaam man day mat ci man boog laay wax. seer na seeraay boo xam ne. nga bàyyi ko moo gën loolu. boo ci tëlee daal pour nga mm-hmm. pour nga pour nga pour nga pour nga faju si mm-hmm. day jafe mm-hmm. bu dee jigéen la nag dina tax ngay njaalo ci dina tax ngay dem maanaam di provoquer au lieu góor moo la war a provoquer ñëw dox si la ñëw sàkku si njaalo ci yow yow yaay mujj dem di wuti ay góor di nga dem ba dootoo doyal góor di nga dem ba nga xam ne dootoo doyal góor saafara bi njëkk bi nag mooy nga tuub delluwaat ci yàlla xam ne lu bon baaxul nga bañ koo def ndax loolu. ndax mhm. suñu borom luñ lum ñu tere rek. Mhm. suñu intérêt la. suñu borom. Mhm. liñ koy defal nii amul ko benn njëriñ. kon nag lum ñu tere rek suñu intérêt la te loolu baaxul. man yow daal buy génn. na génn ci sëy te sëy boobu na nekk sa jabar. dëgg la man yow suy génn. na nekk ci sëy te boobu na nekk sa jabar. nga sëy ak sa soxna ba pare. nga am ci bànneex. yàlla bindal la tuyaaba. loolu mooy suukar suñu sotti lem. dëgg la ndax saa boo sëy sa jabar ba pare. yàlla dina la bindal tuyaaba. Mhm. bindal sa jabar tuyaaba. dëgg la kon nag. Mhm. boo màndiw daal buy génn. Mhm. na génn ci loo xam ne lu neex yàlla la. ba pare nga am ci tuyaaba am ci bénéfice. waaye màndiwu génn nga ñàkk sa xaalis. nga fay jigéen sëy ak moom. ñàkk sa xaalis ba pare. am ci ay duma ëllëg yàlla ci yàlla musal. ku koy def daal na ko bàyyi. fawe sa bopp daal muy góor muy jigéen. bu dee góor la day mën na koo tëleloo. Mhm. bu dee jigéen la mën naa tax dootul yem ci jëkkëram même su amee borom kër dootu ci yem mhm. day mujj dem di seeti yeneen góor di tëdd ak moom te moom moo koy sàkku ji mhm. te jigéen dafa war a toog ñu sàkk ko warul dem di sàkku ji kon daal ku koy def na nga ko bàyyi képp koo xam ne nag yaa ngi koy def nga bëgg bu dañ wool sëñ Bass Bamba xewal dina la jox ay saafara maanaam nga baggu saafara bu njëkk bi nag mooy bala ngaa ñëw ci sëñ Bass Bamba xéewal fas fasal yéene nga bàyyi ndax li lu mu mënta bàyyi lu lekk ak naan amul dëgg lu lekk ak naan maanaam nit mën na koo bàyyi kon nag fasal yéen a bàyyi ñëw bu dee arab la ñu xool bu dee it maanaam dafa téye sa kattan ñu jëm laa delluwaat sa kattan googu jëm la koo fajal delluwaatal la ko nga delluwaat sa sago nga takki soxna maanaam yow dañ laa dañ laa war a fawe góor dañ koo war a fawe jigéen dañ ko war a fayoo warul fayoo boppam xam nga fooyee sa bopp moom baat bi rek dafa soof dëgg la ku ñu war a fooyee nga wëlbatiku fayoo sa bopp ku soof nga Mhm. loolu kessa la. Mhm. Mhm. ginnaaw ah, Serigne Bassa ah, kàddu yi wax mu nek kàddu yu werr nek kàddu yu leer. nee naa leen la fii la xéwal TV fi la njariñ li nek ñu ci and ak sa su dee Serigne Bassa ba ma xewal neena la leppam mom dafa xewale ma sha allah tarkaan ñu la di ñew nak a ah, ci benen a feebar bi nga xamee ni manam sa gemmin da fay am xet sa yaram tamit di am xet Serigne Bass loolu lan moko ko waral. soxna Mati ñëw nga ci question bu am solo feebar bu doy war feebar bu tas kër. bo boo xam tax na nit xaru. dëgg la xam nga Sénégal dañoo nekk ñoo xam ne dañuy daw ku feebar mhm. te daw ku wéréd yi mhm. mën naa yokk la ko daloon dëgg la nga feebar boobu bu la dalee mhm. nga am borom kër wala nga am jabar sa jabar moo la njëkk a daw wala sa borom kër moo la njëkk a daw dëgg la te ku feebar kenn du la daw te loolu feebar la da ngay dégg am na ko ma woo wax ma ko ne ma man sama gémmiñ gi day génne xet damay borosu. Mm-hmm. lu nekk laay def. te mm-hmm. sama gémmiñ gi day génne xet. dëgg ma ne ko li nga li xet gi noonu nekkul ci gémmiñ gi. Mm-hmm. xet gi ci biir lay jóge maanaam ci li ñuy wax mbaq. ci fa ñam yi dem. foofu lay jóge léegi nag am na ñoo xam ne. ndeysaan am na ko ma ci doon faj Dakar. mi ngi dëkk mu ngi dëkk Kër Massar yaakaar naa fa la dëkk. di jaay di jaay. marché Sandaga mhm. mais su jëlee taxi taxi bu dawee tudd dana ko tey freiné ne ko sëñ bi wàccal mhm. ndax xet gi génn ci yaramam mu mujj kaar bu mu dugg it ñu koy daw te mhm. amul njëgu oto day doxe Sandaga ba Kër Massar bis bu nekk mu ñëw ci man bi mu ñëw ci man da doon jooy comme xale yàlla dimbale na ma saafara nañ ko saafara naa ko ci kàttanu yàlla ndax ni tey faj yàlla mooy wëral dëgg la bari ñu mu dal ñoo xam ne tey seen àdduna yàqu na léegi nag li koy indi. hémorroïde bi ñu génn émission bi passé da koy indi waxoon naa ko ci. hémorroïde ndax am doomu aadama ci biir mbàqam. Mhm. wax naa ne dafa am ay car. Mhm. boo reyoon xar nii sax wëlbati mbàq gi ci biir. Mhm. da ngay gis dafa am ay car. yàlla lu mu bind lu am solo la yàlla du bind lu amul solo. xam nga ni de bind yore fooy bind ba mu yàgg mu ne lii baaxul sànni feuille bi. wala ngay daaj benn affaire. sànni ko dem wuti beneen yàlla nag du def loolu. yàlla du lu baaxul. yàlla bi mu defee mbàq googu. Mhm. def ci car yooyu car yi day yëngatu. Mhm. moom mooy reesal ñam bi. Mhm. ñam bi doomu aadama di lekk. car boobu car yi dafa am njariñ léegi nag bu fekkee danga nga amee hémorroïde wala nga amee feebar boo xam ne. car yi dafa tëdd. buy tëdd day tëdd ci kaw ñam. bu tëddee ci kaw ñam nag. bu yàggee foofu ñam woowu day day maanaam day day day day maanaam day soppi xet xet bu bon lay génne. Mm. léegi nag soo waxee. maanaam ca biir lay jógee. Mhm. te soo xoolee xam nga wax day ànd ak ngelaw chaque jour booy wax. dafay ànd ak ngelaw luy génn. Mhm. ànd ak ndox muy génn xam nga léeg-léeg gis nit koy wax am nga gis ay ay tuflit. di génne ci gémmiñam. Mhm. maanaam sooy wax dafa am ndax wax ci biir lay jógee. wax fi ko yàlla branché ko ci gémmiñ. maanaam lii puus dafa am loo xam ne ngelaw loo xam ne mooy puus làmmiñ bi. moo tax làmmiñ bi di def nii. Mm. dafa am ngelaw boo xam ne ci biir bi la nekk. mooy bu booy wax day puus làmmiñ bi. moy waral làmmiñ bi. di def ni so xolé suufu làmmiñ bi amna lu ko téye ben Ben, ben, ben, ben, sidit bu ko téye. Mhm. légui nak sidit bobu mom lay yëngal motax wax gi ngay manam ngelaw li jóge ci biir bi. moy mhm. tax wax di def ni bi def ni ngay wax. Mhm. ngelaw bu dafa xet gu bon. so xet gu bon day génn. légui nit ñi la wara jappalé ñi la daw. à waaw ñoom ñoo lay daw wala sa mbokk yi wala sa jëkkër wala sa jabar mhm. ñoom koo waxal mu yi taf gémmañam mhm. bu yàggee nag too dem ci nit ñi dëgg la da daw nit ñi mhm. ni la nit ñi dawee ndax gor buggul jub ay nit ñëpp jóg taxaw dëgg buggul jub ay nit ñëpp ñëpp jóg dem seen yoon buggul wax ak nit muy dumooyu wala muy taf gémmañam as gor munte munte muñ loolu léegi nag yow yaay mujj di daw nit ñi. Mhm. léegi nag soo mujjee di daw nit ñi dootoo wax. dëgg la ndax ku nekk mu xam nga nit moom nit ku wër njaay nit ku nit koo xam ne dara jotu ko. du toog di waxal boppam. Mhm. léegi nag dangay ngay mujj tëj sa gémmiñ foo toll di noppi. Mhm. léegi nag noppi boobu ngay noppi mooy musiba. nit ki dafa am ay der maanaam deram bii. dafa am ay bën-bën ci nekk ñu koy wax poor. poor yooyu nag. mujj gi nag xetu xetu xet gi nga xam ne moo nekk sa biir bi waroon a génn ci gémmiñ gi léegi nag moom mooy génn ci sa euh, sa bën bënu yaram bi moo tax foo koo romb mu xeeñ boo sumee mbubb ñu defee ne musiba da cee nekk léegi nag am na ñoo xam ne mhm. xaroon nañ ci ngir loolu am na ñoo xam ne xaroon nañu mhm. ngir xet googu ndax xet googu ñoom lay njëkk a sonal mhm. ndax xet bu nekk sa gémmiñ wala bu nekk sa yaram yow bi mu nekk ci yow yow lay njëkk a déranger maanaam soo toogee. Mhm. yow lay njëkk a xeeñ. dëgg léegi nag feebar bu doy waar la nag. Mhm. ñu bëri am nañ ko. Mhm. maanaam ñu bëri am nañ ko. mais mu ñoo dem di ko faju ji. ndax dañuy ragal sax dem ci sëriñ bi. maanaam wala ñaankat bi wala fajkat bi. mu leen koy fajal feebar daal boo bëggee dégg daal. hémorroïde boobu dina ko dindi. beneen mbir it. bëñ. bëñ boo xam ne dafa bënn dafa bënn fu nekk. di def ñam boo xam ne. maanaam boros mënu faa nekk bant mënu faa dugg di ko génne. ñam boobu dem ba yàgg fa. dina ko indi. dina ko indi signe boo xam ne dafa am infection. Mhm. maanaam signe boo xam ne dafa bënn. Mhm. di jël ñam dina ko indi. dëgg la yooyu yëpp dina ko indi li ko mën a indi daal bari na. Mhm. waaye daal feebar la boo xam ne daal. doy na waar lool bari na it. ñu mu dal ñoo xam ne tey jii mënatuñoo dem sax di faju ji. wax dëgg yàlla mi ngi yàq seen àdduna. te day jaxase sa àdduna. ndax ku sañoon boo boo. boo gisee koo gëj a gis. Mhm. wala nga gis sa xarit. Mhm. nga lëngu ko kottanteeg moom. Mhm. waxtaan ak moom saafonteeg moom. waaye boo naanee ci ndox kenn du naan. boo toogee fenn kenn du fa toog. boo rombee boo duggee ci am nga am ñoo xam ne nga day des foofu. dëgg la loolu lu wér feebar bu doy waar la daal boo xam ne. bari na mais am na saafara. am na waaw am na saafara xam naa ne dinaa dugg foofu mais comme que ñun mooy ko internet yi la ñuy seen laaj mais am na ñoo xam ne dañ ne est-ce que du feebar boobu te du ñàkk cat ket amu ci jinne amu ci te am na ku ma wax woo barki dem mu ne ma feebar bi damaa dal damaa dem ci benn sëriñ mu ne ma jinne moo jinne moo ma ko def bu ñu toog jinne yi jinne deful loolu jinne yi li leen tuumaal dafa bari ku fase sa jabar sax ne jinne yi la da ngay topp di doxaan wala ngay naan sàngara wala amoo jom wala nangu woo liggéey sa jabar toog moom yàgg dem seen kër nga dem ci benn sëriñ di ko seetloo mu ne la jinne yi tas seen sëy dëgg la dañ bàyyi jinne yi ñu naan jinne yi bu nu mënoon dem tribunal fii bis bu nekk nga gis jinne bu porté plainte nit ñu taxaw tribunal di di leen atte yi dinañ bari lu xew ñu ne jinne yi la <laughs> nañ ñun la du jinne yi ñun ñii la mm-hmm. li ñuy lekk baaxul ni ñuy lekkee baaxul mm-hmm. suñu lekk baaxul mm-hmm. heure bi ñu war a ndékki ci la ñuy añ heure bi ñu war a reer ci la ñuy añ heure reer moom amuñu ko bu ñëk ba midi fu mu la mësa fekk salim to bi ñu daan def ci tagay ni fu mu la mësa fekk ci mbéd bi da nga daan tardana añ. da nga daan dégg midi midi keng bol keng légui ba neur la 5h keng bol keng. ah xañ na mëna naa dépenses yi lijjanti la waaye amulu heure añ. Mhm. bu ñëk ba si timis fu mu jone bu ñuy julli timis di teg reer bi. Mhm. mais légui da ngay tok ba une heure une heure ci guddi onze ci guddi ñu naan demal yekk reer bi mhm. ñu ngi waaje xale yaa ngi waaje nelaw léegi ñu lekk ko dem tëddi nelaw li mhm. ñuy waree mhm. ak ñi ma doon wax nii saf-safal yi xam ne ay kumbaak ay ajaak nga ay wëleeg xam nga nekk kay xam nga ay nguy ak façon bu ne am na dëgg la xam ay nguy waaw ak façon bu ne am na façon façon kib bu nekk am na li ñuy def ba wër dëgg la moo tax yàlla yàlla yaram comme Serigne Bass ni mu koy waxee waaye Serigne Bass dañuy ñëw ci saafara gi lan mooy saafara jàngoro jooju nga xamee ni mooy xeetu gémmin ak xeetu yaram waaw bu dee bi safara bi dina compliqué mais naa ci dimbale nit ñi bi bu dee ci biir la nekk am na lu ma ci joxe woon nga wut weewu nag xoos ko ba am ci sunguf di ko booleeg salaat am ci solo lool lool lool dina tax cari jógaat bu cari jógee bu yëngatoo rek ñam ba fa nekkoon day dañ kooku saafara la am na garab bu ñuy wax suur mom lañuy bolé ak xorom polle mhm. ba paré nga boole koog meew manam mhm. di ko defar kaasu meew mhm. jël sunguf suur bi def ci jël xorom polé bi def ci boo yëngalé ba mu ba mu bo défé ndox mu tang ba mu dal nga ségg ko nga naan ko laata ngay lekk booy maanaam na ñëk sa biir na mujj sa biir xam nga koku baax na ci trop trop trop trop trop ci biir bo xamné ki même xorom polé kese kese kese kese ak méw Mhm. baax na ci bu fekkee am na ñoo xam ne du naan meew mhm. nga jël xorompole bi kese mhm. di ko def ndox mu tàng te bu benn kuddu xorom pole def benn kaas bu mag laata ngay lekk nga naan ko mu mujj mu njëkk sa biir mujj sa biir kooku moom bu dee ko lu nekk ci biir la di xeeñ ci gémmiñ gi loolu xorom pole baax na ci ah, xorom pole kese wala xorom pole ak meew baax na ci nga koy jël soo koy jëlee bool bala moo yàgg dina daj bu soobee yàlla waaw bu dee ci biir la na ay feebar nag mais mënuñu ko lim bëri na ay saafara mais mënuñu ko lim mais xorom pole boobu daal ak meew. Mm-hmm. baax na ci torop torop torop torop torop mm-hmm. torop. Mm-hmm. même naajo. naajo bi ngeen togg nii. boo ko jëlee togg ko togg ko ba mu ñor ba nga xam ne mel. Euh, mën nga koo bati. da ba mu ñor xam ne mën na mën na cee bati. léegi nga bati ko ba pare. jël tuuti tuuti euh, daakaane. daakaane tuuti sungufu daakaane nga coof nii rek. def ko ci naajo bi. maanaam di ko lekk. laata ngay ndékki. di ko lekk lekk lekk ci nag ba sa biir fees. maanaam dina ko dindi mhm. da koy njëkk a lekk di ko mujj lekk dina ko dindi même laaj bii mën na koo dindi laaj bii boo ko jëlee mhm. laaj nag dafa baax trop mhm. mais gars yi faj du ñu wax laaj ñu ngi koy da ngay dégg da nga koy tëj ci tëjal dëgg la da nga koy tëj ci tëjal lekk ko gi nga laaj soo bëggee mu faj la dëgg dëgg dëgg dëgg ay comprimé nga ko def comprimé da nga koy dagg ba mel ni comprimé ni ngay naanee comprimé xam nga comprimé kenn du ko yëy ni ngay naanee comprimé da ngay da ngay dagg laaj ba mu sew. Mhm. nga nga seex laaj bi. Mhm. jël ndox jàllale ko. boo def ndox nag boole koog lingom mhm. maanaam boo tegee kaasu ndox bi. pàccal ci tuuti lingom ak ko mën a fajoo. loolu moo moo ëpp saafara ci laaj. gis naa ñoo xam ne it bu amee wala ballonnement ñu naan jëlal laaj bi. nga ko sa suuf fi ngay demee woon nag. loolu it mën na koo faj mais saafara suy jur jàng lay doon dina indi génn gémmiñ guy xesaw. gémmiñ ngay waaw mhm. léegi garab bu la ci kenn nax mhm. na jaar ci gémmiñ mhm. wàcc ci suuf waaye jaar tubaab yi ñu bu ñu leen topp bu ñu leen toppandoo ci loolu ndax boo amee hémorroïde boo xam ne maanaam wala gémmiñ gu maanaam biir buy xeeñ nga wëlbati ko jël laaj la ko sa suuf mu yëg ci kaw léegi xetu gémmiñ la la indil mën naa faj léegi léegi la nga xam ne loolu la war a faj foofu da koy puus mu génne ci gémmiñ gi te bu boobaa xet bu doy waar la fay lay lay génne

jema wut li patal ko ci diko nan lo ci faju yalla dina ko safar laj lu doy waar la mais boko toge wala nga tëj tëjal ko mhm. la wara def budé budé 100% la 25% mhm. la lay faj ta 25% yoy pour cent yooyu mhm. mën na laa indil ci ay jangol deug la motax laj dal dina ci def waxtan spécial moy laj ah, dina ci def waxtan mais dal safara yu bari na ku xam ku ci ku ci mënul defar yoy it ñun am na ñu defar ba tek boo ñëwee ñu jox la ko te ñun moom mhm. ñu ne borom xéewal gi xéewal gi moom ci ñun la fii la saawane fii la baawane dëgg la waaw ndeysaan Mm-hmm. ñu ngi suñu biir émission gàncax gi. Mm-hmm. bu leen ñuy fàtte nag ah, di abonné seen seen Xeweul ah, TV ci YouTube bi mais suñu numéro commercial muy 76 594 49 40 ñuy wéyal ci suñuy laaj rek suñu mbokk internet yi nga xamee ni nee nañ tamit ah, feebar bi nga xamee ni fàtte yi nga xamee ni buñ tegee seen téléphone dañ koy fàtte ñoo ñooñu nga xam ne lu ñu jàng dañ koy fàtte lu waral lu waral indi fàtte. waa fàtte dafa nekk loo xam ci cerveau la. Mm-hmm. maanaam sa cerveau bi. Mm-hmm. maanaam moo dul normal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu tegee seen téléphone sama téléphone fu ma ko teg te ay xale yu ndaw la ñu. te boo xoolee xale yi di fàtte. Mm-hmm. nee na la fàtte bi li koy indi. jamono bi ñu toll nii. mooy kii bi yi ñuy lekk nii. kib. mooy yii saf safal yii. ay magie waaw ay ay kii. saf safal yii. ay ajaak ay mareek. xam nga. xam nga yooyu ak xam nga ay absaak. yooyu ñoo koy indi. saf safal yii. manam suis na ci cerveau nit da dem ba université. Mhm. mënul français. dëgg la Sénégal mhm. mhm. nga koy gis. am bac université. deux nek deuxième année. té mënoo On français. fi nga koy gis. amna ba ci ñam yi ñu ni ci li li cerveau xalé yi. Sénégal. ñu ci bu ñu défé rek. nga ñu ci bari am na nag ñu yeewu am na ñu am xel. Mhm. mais am na ñoo xam ne bu nu defee rek. Mhm. nga ne waa kii moom. Mhm. xanaa moom jàngul. xanaa kii yaruñu ko. xanaa kii amul ay waajur. lan moo koy indi maanaam saf-safal li ñuy lekk nii. maanaam dina yàq sa servo ba nga xam ne dootoo mën a xalaat dara. lu ñëw rek dafay dem. ndax cerveau dafa am loo xam ne day capté. am loo xam ne day sànni. mais bu dee nag dafa am feebar. day sànni rek wala muy capté rek. ta capté rek mhm. manam baxul sandi rek baxul mhm. da nga wara sanni cerveau ni lay def ba pare di téyewaat mo mhm. lol moy cerveau bu normal première cause bi mooy ñem ni dina ko andi feebar dina ko andi manam am ce cerveau bi dérangé wu dina ko andi xam nga sàggan gu metti ak néewal gu metti dina ko andi waye yoy yep nak amna ay safara ci kàttanu yàlla li ko mën a indi bari na dañuy teunk rek waye dal cause principale bi manam yi ñuy toggal mhm. yi nga di jël diko def seen ci ni manam mhm. mo gëna bon ci manam mhm. esprit xalé ci seen cerveau yi ndax directement day dem ci cerveau bi da fu démé ben lenn mëna am da ngay génn rek wala ngay wala nga tok di récupérer rek té ñaar yoy tank ya koy def nga ci faté waaw waaw mm. serigne bass amna suñu mbokk internet ñu faté sagan gu metti la wala tamit sa bop lu waaw loolu dina ci kii xam nga. Mhm. xam nga cerveau da ko yelloo ak lu mu attan. Mhm. xam nga comme li lay wax nii. Mhm. boo mësaa jàng ba pare comme daara yi nii soo jàngee. dañ lay may alxames. pour nga noppalu. ak ajjuma ci suba. pour nga mën a noppalu xam nga pour lan nga noppal sa cerveau. ndax cerveau dañ koy noppal. ndax nee naa la luy récupérer la di sa di di sànni. maanaam nii nii nii nii mënuma koo def jëmale bu kenn xamul. léegi nag da ngay jékki-jékki nga noppal sa cerveau. encore bois le café ak meew café ak meew. dina tax nit di de Nescafé ak meew. Mhm. Mhm. café ak meew dina tax nit fàtte. Le mhm. café ak meew café ak meew. waaw ndax meew. day avec ay miskil. meew meew. da koy naan say miskil di nelaw. café day yee ay miskil. léegi nag kuy nelaw. ak ku yeewu mun ñu avec moi, bu Mon ci néeg bi nii. man ma gémmantu bay a yow nag nga war a nelaw. teg sa télé bi di seetaan. Mhm. wala ngay déglu musique man ma bëgg a nelaw mun ñoo ànd. Mhm. ñaar ñu gëmante ñoo mën a ànd. Mhm. ñaar ñu gëmantewul ñoo mën a ànd. noonu la café ak meew mel da ngay gëree gu naan café au lait bu saf sàpp lañ lañ ma defaral. dëgg la yaa ngi boole ñaar ñoo xam léegi soo naanee café ak meew. dañuy xeex. kii day fexe day bëgg. miskil yi nelaw. kii bëgg miskil yi yeewu. léegi nag ñoom ñaar ñuy xeex. loolu nag dina tax sa cerveau bi. Mhm. jaxal so ba ngay faté mhm. motax café ak meew nañ ko moytu bu baax nanal café bu la nexé café sec mhm. nanal meew bu la nexé meew sec mais nga koy bolé Sénégal dañuy bolé lo xamné da ngay dégg ñu salade de fruits dëgg la te pourtant baaxul salade de fruits salade salade de fruits baaxul am na fruits yoo xam ne mënut a nga jël banana pomme orange xam nga euh, ananas xam nga jël meew def ci andul ay fièvre rek la indi indil ko ne muy titre non salade de fruits lañ ma defaral dañuy top tuba yi ba dugg top nga tubaab boo koy yaa ngi dégg ñoom Babacar dañuy topp tubaab yi ba loo xam ne tubaab yi duñ ko def mhm. ñun dañ koy def mhm. doo dem benn tubaab mu tegal la salade de fruits mhm. comme li ñu koy waxee nii salade de fruits mën ngaa dagg sa banaana defar ba mu jekk xam nga nga nga tas ko xam nga lekk xam nga dafa am ñam yu mën a ànd am ñu mën ñam yu mën a àndul xam nga ananas ak meew kenn war koo boole da ngay defar garab ba defar léegi nag defar nga da ngay defar garab ba defar benn garab boo xam ne acide ngay am boo xam ne bu duggee sa biir ballonnement rek la la indil. Mhm. wala mu dugg ci sa neer yi. Mhm. mu dugg ci sa sidit yi. Mhm. ngay am ay nerf ak. ay bët yu lëndëm ak ay nopp yoo xam ne kenn xam nga ku la wax nga naan yëpp li ñuy lekk xam nga. moo tax daal mi ngi noonu. bëri na ay saafara. waaw dinañ ci ah, ñëw bëri na ay saafara. nee naa ne da leen ñu topp rek ci suñu émission gàncax gi. ak Serigne Bass Bamba xewal nee naa la moom moom ay ay affaire am lépp xewale. ñu daal di ñëw nag ci saafara Serigne Bass loolu lan moo koy saafara. fàtte li koy saafara bari na. Mhm. am na benn garab bu ñàkkal fayda. de lekk golo sax lañ ko tuddee doo gis kenn ku ko lekk te a baax garab googu buñ ko xamoon du def taxaw ci marché bi. Mm. muy ndiir. ndiir am na ñoo xam ne sax xamuñu ndiir am na xam ne xamuñu ndiir. ndiir boo ko jëlee dafay wow. Mhm. booru Mali gii lay jógee ak ay Nigéria ak yooyu. Mhm. boo ko jëndee dafay wow. mooy doom yooyu da koy xot ci ndox. maanaam ba mu fanaan muy door a wow nag. nga gis nag mu tooy xepp gi nga ndiir boobu même soo amee xale buy jàng xel mi neexul kooku kiis la dee ko jox ndiir muy lekk kii mooy Serigne Bass international dee ko jox ndiir muy lekk dëgg la buy lekk ndiir mhm. kalaasam kenn du ko fa raw jëndal ndiir rek di ko ko xoojal semaine bu njëkk nga jox ko lu toll kaas ataaye mu yëy ndiir ndiir mhm. mag muy fàtte mhm. maanaam na jël ndiir waaw même mag mu naax ba nga xam ne xàmmeetul guddeeg bëccëg day añ ba pare di yuuxu naan añu ma jëlal ndiir nga dëbb ko comme amatul ay bëñ dëbb ko rek ba mu mokk nga tàngal ndox sotti ko ci jox ko ndox mi mu naan ndiir li muy faj ma dafa bari te lekk maanaam xoolal dëkk yi mu am doo fay dégg ñun ñuy jàmbat nii ñu du ñuy jàmbat nii doo ko fa dégg garab gu am solo la muy ndiir kuy fàtte na dem jël ndiir garab gu am solo ngi noonu

noonu la baaxee ci kuy fàtte. Mhm. te ma jox la ci beneen mbir. Mhm. gi nga ko am góomu robaale yooyu góom yi ñu wax góomu robaale. Mhm. jëlal ndiir bi nga dëbb ko ba mu mokk nga wut benn pool nga saaf ko. saaf ko ci pool bi. boo ko saafee ci pool bi raxasal góom bi ak ak ba mu set. nga jël ndiir gi tay ko ci. nga jël ndiir bi tay ko ci day wow koŋ. day xëcc mbërëg bi ba mu yàgg ba mu day wow koŋ niir googu. bi nga boo amee ay picc. sa yaram bi nii. jëlal niir nga dëbb ko. maanaam diw ko sa yaram. day wér pëlëg. niir dafa am njëriñ te noonu lañ ko ñàkkal a fay lekk golo lañ ko tudde te nit ñi la gën a baax. dëgg la comme Serigne bas ni mu ko waxee ndiir hmm. ah, boo garab la boo xamee ne day faj waaye ñun dañ kaa ñàkkal fayda kon boog day leen déglu Serigne bas Sa Bamba Xéwal ñu daan dugg ci feebar bi nga xam ne moom la ñuy mujjee sax wax moom nga xamee ni moom mooy tuur ndox ci wàllum góor ak jigéen ak xale ak mag Serigne loolu lan moo ko waral tuur ndox. Mhm. damaa bëgg mu leer xam nga ay tuur ndox ak yooyu def yooyu am na ñoo xam ne ma nga toog am na ko toog lan mooy tuur ndox. Mm, dëgg na ko xam tuur ndox mooy jël ndox mi dem tuur ci mbedd bi. Mhm. wala tuur fee. Mhm. da nga naan ku xale buy sawlal. wala mag muy sawlal. loolu nekkul lu garaaw pour ki nga xam ne. mi ngi déglu mu leer ci boppam. na xale yoo xam ne dañuy sawlal. am na mag ñoo xam ne dañuy sawlal. am na ñoo xam ne man ñun ay fajkat lañu. Mhm. dañuy gis mag moo xam ne am na 60 ans maanaam di sawla. faj nañ leen ñu wër. Mhm. am na ko xam ne bi ma ko fajee ndeysaan. Mhm. dafa ñëw ne ma loo bokk ak yàlla. <laughs> ma ne ko subhanallah ndax nee na. bu 5 heures masa bu masa añ. pare na ci naan ndox. am na koo xam ne faj naa ko bu 5 heures masa jot dootul ñemee naan ndox. mu ñëw ma jox ko garab yi. mu dem naan tur sawul ci guddi gi. mu woo ma ne ma. man de sawu ma mais est-ce que mën naa naan ndox waaye naanu ma ndox de ma ne ko toggal ci digg lal bi. naanal garab yi nga toog ci digg lal bi boo demee bay tëdd. toogal ci digg lal bi nga naan ndox ba mënatoo naan. nee na mu yore potu potu potu lal di mooy pot tamaate yu mag yi. moom la dem tànk ndox mu sedd. toog ci lal bi su demee ba naan nii rek tiit ba mu yàgg mu ne xaaral ma forcé mu forcé naan ba amatul fu mu def ndox mi mu teg. maanaam bis boobu sawul. mu ñëw na ma loo bokk ak yàlla loolu la ma wax ci suba gi. Mm-hmm. mais Serigne Bass ma mm-hmm. ne ko subhanallah. Mm-hmm. feebar la. maanaam taayalal jóg nag dina ko indi. maanaam bëgg nelaw. dina dina tax a saw la. au nga jóg sawi. ngay wëlbatiku di di di di di lii diital. taayay jóg xam ne nee na su ma jógee sama nelaw yàqu. loolu dina tax nit di sawla maanaam di naan ndox mu bari. di naan ndox mu bari. di tegale di naan rek di fowee ndox mhm. donte ndox mu bari baax na ci nit mais di ko fowee baaxul mhm. comme xale yi nga xam ne foo la gis ñu ngi fo mhm. di naan la dina tax nga am na yoo yoo xam ne it dina la géntloo nga nekk ci douche di saw wala nga gént naturellement nekk ci douche di saw defe ne yaa ngi bi saw fekk yaa ngi ci kaw loolu di nelaw gént dina ko def maanaam gént dina ko def euh, taayal dina ko def jinne yi dinañ ko def ndax yi émission yow yi nga wax yi yëpp bu ci nek émission la émission spéciale la mhm. waaye dal ci teunk dal mhm. mag dina ko def mhm. xale dina ko def wa dañ koy teunk fofu rek nga daal ñi baxé safara bi wa safara bi nak jafewul safara bi jafewul amna ben garab bu ñu wax pamplemousse pamplemousse mousse dafa melni lingom la lingom ma dafa melni orange orange bu mag lay orange bu day mag mais ñam bi fay tuuti day ngand xolit bi dafay xolit bi dafa dijji bo bo xolé orange bu tolé ni, bo xolé day tuuti tol ni loolu la pompe limousin lu melni orange la bo xolé yeul ñam bi lek wala nga maye ko xooli gi nga ndax garab bo gis xob bi am épaisseur xob bi dijji jàppal ne garab bo mo gën ci garab bi mi ngi melni xaal xaal li bolli lañuy li li li li gëna bax lañuy sandi muy xolli di mhm. lek li nga xam lé boko gën xaal ku ko xamoon doo ci sànni dara doom yi dafa baax ñam bi dafa baax mais li ci gën a baax mooy xolli xollitu xaal yi góor ñi bu ñu ko xamoon naa ci def waxtaan góor ñi bu ñu ko xamoon xaal buñ la ko jaayee ñaari junni jëndal dëgg la am na benn garab bu ñuy wax viagra tubaab yi chinois yi ñoo koy defar xaal bi xollitu xaal bi lañ koy def xaal pastèque bi moom lañ koy defaree boo demee Chine moom lañ koy defaree xaal garab goo góor gu ko góor gu bañ a yoom baña télé baña a jabar jëppi la salam salaamaaleykum nga ag fa nga jëm jëndal xaal goor go xam sa bik day càng jëndal xaal deug la koku nak bonus la xaal bi xamul noo def mel mhm. xoliti mel ñam gi mhm. jëlal xoliti nga dag ko comme xaar mhm. xari comme xari li nga ko jox xar li nga ko jox xanoon baxal ko bo jëne xaal nga xar ko ci digg bi xaar ko ñeenti xaj ben ben xaj bi baxal ko ak ñetti litre ndox soo paree segg ko su guddee. xellil benn kaas bu mag. def ci meew def ci poobar. nga naan ko toog 30 minutes dem song soxna si jërëjëf la lay wax. xoolal xaal ji. xoolal xaal xar yi xoolal xar dama la jox misaal. boo ko joxee xar xoolatu xaal yi. boo ko joxee xar. xar yi dañuy saw gétt gi yépp dañuy saw gétt gi. laa <laughs> ilaaha illa xam nga ñun duñu.

kooku kii la woon. kii la woon waaw dama ko doon waaw dama ko doon njàmbaas. ndax gars yu bari fi dem nañ garage. li mhm. oto yi oto yu bëri soo demee garage oto yi ñuy defar carburateur ñuy defar mhm. radiateur. Mhm. loolu nag gars yëpp la daal fi mu nii. gars yi moom ñu ci bëree bare bari ñu seen carburateur panne na. ñii seen i bouse yi doot <laughs> seeni i yi yi amatul essence. ñii moom moom daal moom la yàlla xam doy na waaye sëñ Bass Baba xew la nga fi ñëw leen rek. dëgg la gars yi nga ñëw mais ñëw leen rek. saafara saa nga parce que assaini unité 3 ci wote armée li góor gu fi ñew sa aajo fajo barki Cheikh Ahmadou Bamba da gis nga mhm. lo am bo ñëwee ba faj la dëgg la léegi Pamplemousse laa nekkoon Pamplemousse ci kuy sawlal mhm. Pamplemousse xollit yi mhm. jëlal peuple Pamplemousse ben bu mag wala ñaar nga dag nga dag ko boko dagé daggee jëlal def ci benn kii ben ben ben ben benn fourne tégal ci fourné bi nga def ci marmel bi nga tek ko ràpp nag cinq minutes maanaam bu tàngee rek. calculer sa montre cinq minutes. cinq minutes wala sa portable. mais da koy tij ràpp. léegi teggil tegal ci suuf yëngal yëngal yëngal yëngal. nga segg def ko fenn di ci naan kaasu ataaya soo xëyee suba ak bala nga tëdd kaasu ataaya. mag mu koy def doo sawlal xale bu koy def dootoo sawlal. saafara benn saafara bi gën a gàtt nga lu bëri na ay saafara nag. Mhm. waaye ku mu daal boo ñëwee suñu bas ba xewal mais jëlal saafara bu la jox noonu. Mhm. bu ci am solo mooy pamplemousse boobu. Mhm. Mhm. ginnaaw feebar yi ñu indi woon yëpp Serigne Bass a ah, toj na ko daal di wax saafara yëpp. mais nag mhm. Serigne Bass dama ciy njàmbaasaale rek corona bi lu tax Serigne yi waxoo leen fajoo leen corona ak ñi nga xamee ni dañuy faj fajum olof lu tax amoo leen saafara ci corona bi. waaw xam nga coronavirus balaa la. balaa la boo xam ne yàlla moo ko wàccee balaa nag su ko yàlla wàccee jéppi na. ay jaamam. te bëgg na ay jaamam. yàlla ba pare bëggunu nit ki soo ko jéppee bëgg ba pare bëgg ko da nga koy jox avertissement balaa bi avertissement la pour ñu delluwaat tuub delluwaat ci yàlla suñu borom mais nag malheureusement gars yi ko noonu waaye gis nga garabi olof li ci nekk ci ay antivirus kenn xamul nu mu toll tubaab amu ko gis nga bu ñu jëloon fajkatu olof yi dugal leen ci coronavirus bii kaa yi day wàññeeku ndax li fi nekk ci ay antivirus bari na. Mhm. gis nga niim bii. Mhm. niimaa gii niim gii. Mhm. boo ci bax boo ko baxalee. di ko sangoo benn virus du la dugg. xoolal buntu kër ko dem am na niim. antivirus la. xoolal mag ñi bu ñu masaa di rooti. bu ñu rootee ba pare bañ ndox mi dara dugg ci. dañuy dagg benn caru niim teg ko ci paan bi. yenn ko dem kër ga. dara du ci dugg. boo koy sangoo benn virus mënu laa dugg. mooy niimaa bi. kàdd garabu kàdd. xas bi reen yi xob yi lépp antivirus la boo koy sangoo maanaam benn virus du la dugg sidéem sidéem bi nga gis nii antivirus la sidéem garab bu doy waar la bañ ne ko bu nit bu génnee àdduna pax paxam yi nga xam ne moom la ñu a saañ sidéem lañ koy saañ sidéem garab bu doy la antivirus la sump antivirus la garabu sump bok bok da ngay dagg xob yi. Mhm. daggaale ci dégg yi. Mhm. sump da ngay ci dégg yi maanaam nga nga dagg koog ciseau. Mhm. boole ko baxal ko. mooy xob yi nga daggaale ci dégg yi boole ko baxal ko. boo koy entreprise la. bari na lo xamne tay buñu jëlone ñu jëloon fajkat dugal leen ci. kon ni mu demee du ñu demee. waaye nak nit da fay maandu. loolu la woowul. boo boo demee xew bu la wowul daal boo fa tojee kaas boo demee yaay fay waaye daal comme jéem nañu ñoom wax naa la nag comprimé bi njëkk ci coronavirus li ci njëkk mooy tuub delluwaat ci yàlla tuub delluwaat ci yàlla bàyyi li nga xam ne moom la ñu defoon ñu bañ koo defaat mooy xaar ba 2020 yàlla bind addunaam bii ci juróom benn fan car asamaan mu teew daanu tàllal suuf mu teew banku mu def ci ay xeewal dem ba 2020 ñu ne nouvelle ordre mondial fu ñu ñoom ñoom moom adduna bi ba koy changé di indi beneen adduna mm-hmm. bu bees mm-hmm. yàlla bi moom adduna changé ko ñu koy changé mm-hmm. ñu faramason yi góor jigéen yi encore ñuy dimbalante ñi am na ñuy dimbalante ñi amul dëgg la kon li ci njëkk daal mooy dimbalante ku nekk am nga dim am nga dimbaleel sa morom maanaam te tuub delluwaat ci yàlla bàyyi bakkaar yu mag yi ñuy def njaala beeg sàngara seek góor jigéen neeg faramason yeeg yu bon yépp ñu jël ko teg ko ci suuf jël yàlla delloo ko palaasam ñu dem faju ji bu ñu si dugalee ñu indi suñu xam-xam teg ci kàttanu yàlla dina wàññeeku waaye nag bala ñoo dugg na nit ñi tub yéen ñi nga xam ne nag day na bañ day na bañ corona jàpp leen nii mel nga sa buntu kër baxal ci ab cin ba mu fees joxal sa doom yi ñu sangu bu ñuy génn di dem ci marché yeeg yooyu nañ diw seen loxo moo moo gën a garaw gel bi ñuy diwoo nga niim bii moo gën a garaaw gel bi ñuy diw te doo jënd doo fay kay anti xolal mhm. li mu mën a rey ci yaramu doomu adama sax moom li mu mën a rey mhm. ci bactérie ak maanaam mhm. li mu mën a dindi gi nga niim boo demee Nigéria yóbbu fa niim yóbbu fa benn conteneur nii nga xam ay millions yi millions nga koy jaay Nigéria gii am boo niim ni ñuy béyee gerte fii di ko béyee dugub noonu la ñuy béyee niim moom xol doom nag dinaa ci ñëw doom yi nga xam ne par nawet lay génn ku ko xamoon nawet da ngay jël di ramasser. di denc doom yu doy waar la dinaa si ñëw. gàncax gi daal. suñu borom dimbale na lu jàng nañ ko xam nañ ko. dañ ciy laabiri biir nag doomu adama yi. dañ ci dimbale doomu aadama yi. ndax nit ñi amatuñu lu ñu lekk ku amul loo lekk. loo amoo looy fajoo. koo xam ne amoo looy lekk. feebar yi bari ba pare feebar li gën a bon mooy nga feebar ba pare amoo. ba pare amoo ku la jàppale. te hôpital yi. ku rep rek fay dem manam ku xam ne na yow mi ñak nga pexé mhm. ngay dem hôpital ndax salam salaamaaleykum ñu bindal ticket 5000 francs deug la te bu la xolé amul lenn lu lay jox ci hôpital ba këyit la lay bind nga dem pharmacie mhm. te pharmacie mom du leble xana ñi am ñi fekk par weer mhm. pharmacie kaay ba jox la déssel ga déssel ba 100 francs pharmacie du ko def xana boy fekk par weer fonctionnaire waye ñun ba do lay dal ñun comme amunu nañuy lek lek bu normal cere jang fi ñeba jang fi fonde baa nga fi mhm. mboq maa ngi fi mhm. ñun baadoolo yi na delluwaat cosaan moo gën ñu topp yii mhm. façon lekk yii lekk tubaab yii moo ñu indil musiba yii kon daal loolu moo doon gàncax gi tey mu ngi ma doon xanaa signalé ne waxtu bi daf ñoo xocc hmm. dañuy bàyyi rek Serigne Bass daal di wax kàddu gu mujjoom ci émission gàncax gi hmm. gàncax gi daal maa ngi ci ñëw lii yëpp nag pour yéen la yéen waa Sénégal ak waa bitim réew lépp garab bu ma leen wax nag fekk ne defar naa ko man koo xam ne jote nga ci garab yi maanaam dem mun ngaa jur defar li ma la wax demal nga def ko moo ma gënal. Mhm. mais ku dem ba ñàkk a pexe mënoo koo def. Mhm. woo ma ci 77 666 39 60. numéro bu jafe la nag mais soo bàyyee message. Mhm. mooy whatsapp bi dinaa la ci woo. nekkuñu fi ngir dara lu jàppale doomu aadama yi. jàppale suñu bopp yi. dëgg la ndax li ñuy liggéey ci la ñuy dund di ci dund suñu njaboot. waaye nag ñu ngi ciy dimbalaay doomu aadama. ndax nee naa benn faj daal moo nga joxe sa xaalis ba pare te wëroo waaye boo joxee sa xaalis ba pare wër faj boobu du seet ndax yaram maanaam feebar ak nit mënuñoo ànd bokkulu sax fi ñu jëm yàlla yàlla dimbale képp ko feebar yàlla na la yàlla faj képp koo xam ne mi ngi ci kaso bi yàlla na la fa yàlla jëlee képp koo xam ne am nga soxla yàlla na ko yàlla saafara ñi faatu yàlla na la yàlla yërëm ñuy ñaan ngeen di mbokk yi yéen ñi am ndombo tànk yi dee leen dimbalante yéen kilifa yi dee leen dimbale ñi amul yéen a aye nag yéen a aye yéen kilifa yi. gis ngeen deux mille vingt et un ba mu commencé ba léegi ñaata kilifa ñoo wàcc liggéey. ñaata kilifa ñoo wàcc liggéey yàlla leen yàlla yaram. tàbbaleen àjjana jéggal leen seen i bàkkaar yéen ñi fi des nag yéen fi desandi. da ngeen a desandi. da ngeen di dem. comme ñoom ni ñu demee ñun dañuy dem comme ñoom ni ñu demee. waaye ku ci am sa alal. dimbaleel ka amul. ku man dimbaleel ku mënul. lool dal ku koy def musibe yi di nga ci mucc mhm. waye dal yeen ñi ndom ndombo tank ak yeen kilifa yi mhm. yéen ayé mhm. kon nak saafara si dal moy dimbali la ñu amul te yalla rek tax allahumma salli ala sayyidina muhammad wala alihi wa sahbi wa sallam tasliman nga bal ma nak ma gërem sama gorob bi di soxna jaara lum ma ngi koy gërem mok serigne soye bu ñom la may émission bi ak sama dom ji nga xamne sama yaay la ko tudde muy maman ma ngi koy gërem ma ngi gërem ñep di sant ñep di ñaanal yalla yalla jamm lu ma fi wax nag loo xam ne waxuwul wala loo xam ne defuwul man mii la mais lu ma fi wax lu baax rek yàlla la ndax nit matul yàlla moo mat maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammad di gërëm nag njoogu suñu man bi di gërëm biraam bi nga xam ne moo réalisé émission bi di ñaan yàlla yàlla ñu gisawaat si yàlla ñu gisawaat suñu jëmm ji daal kooku gis rek yàlla na sa aajo faju jërë ngeen jëf ah Serigne ñu ngi lay jaajëfal ci possibilité saay bu ñu la woowee nga dagg sa yitte yëpp daal ñuy uyu ñu ngi lay euh, ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram nee naa émission bi tey maman toog moom moo ko moom ak Daouda sama doom boobu bu baax jooju lii lañ nag lañ leen indiloon ci gàncax gi feebar yi nga xam ne moom lañ indi woon joxal leen ay saafara may nuyu sama réalisateur bi muy biraa di nuyu tam sama maan bi muy Ndiogu di leen sant di leen gërëm ci beneen émission incha allah ci gàncax gi ma ci ànd ak Serigne Bass Bamba Xéewal